tànk yi nga xam ne moom la yëkkati tey mu ñëw fi mu sama kër ba te nekkul sama kër yu yaay parce que xam naa fii kenn ku bëlewul fa am na benn événement boo xam ne amoon naa ci mois de mars bi passé ko ñu koy yóbbu moom moo nekkoon parrain bi Abdoulaye Sène ambassadeur yàlla dafa ñu si taxaw bu baax a baax baax ci développement boobu taxaw ñu ci bu baax a baax a baax lépp loo xam ne soxla woon nañ ko ci suuf boobu taxawoon na ci jot nañ si tamit ñu delloo ko njukkal delloo bu baax a baax a baax parce gis nañu taxawaayam ci gox bi gis nañu taxawaayam ci secteur bi nga xam ne ci la ñu nekk nii amul lenn loo xam ne man dama koy def te du ma ko woo mu conseil ma ci wala mu wax ci parce que doyloon naa ay conseil doyloon bu baax a baax wax dëgg nekk yàlla man sama nga xam ne man maa ngi ci yërëb te ñëpp xamee ma ci moom mu ngi ciy taxaw bu baax a baax a baax yi xam naa ni bari ma jox ko moom xëy na mu wax ci te moom itam duutu ci artiste rek lay taxaw boo xoolee équipe nawetaan bi fii ñu nga xam ne mooy message yi nga xam ne moom lañ ci jeunes yi ci côté sport bi loolu tamit am solo baax a baax baax baax te yaakaar naa loolu mooy. loolu sii si biir loo xam ne day jubale ay nit loo xam ne aussi dina tax gox bi daal nekk si jàmm ak salaam moom chaque jour ci loolu war na nekk ba gox bi ñëpp mën a nekk benn moom chaque jour ci loolu kon ñun tëb ñu tëb rek jël suñu affaire jël suñu événement ñëw jox ko taxawaayam ci loolu moo waral loolu wax dëgg xëy na kàddu yi ci mën a jógee mais man ak sama team xabe bi xam Ablaye Sène ñu ngi lay sant ñu ngi lay ci jàppale bi nga xam ne jàppale nañ ko ak sa taxawaay si biir boobu amuñu sa maa ngi leen di nuyu di leen euh, ziyaara waaye di leen jox seen wàccuwaay muy presque fii nekk nii mooy KMS TV Palo TV euh, ñu ngi leen di nuyu. Ablaye Sène laa tudd ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi jóge fi dem ci année deux mille ngi foofu ak sama njaboot waaye damay ñëw vacances fii waaye toujours maa ngi partagé ak euh, waa dëkk ci lépp loo xam ne lu jëm ci avancement wu la lépp loo xam ni feebar la ci dëkk bi ak lu mu mën a doon maa ngi participer ci lépp lu ma mën kon loolu mooy li nga xam ne mën naa wax ne kooku mooy lay Sène waaw am ci fierté ak yëg-yëg bu rëy waaye di ci gërëm isbek sama doom sama rak am kontaan te ci groupe am xabe mi xam kon bu jëlee événement bàyyi ñu bari tuddee ma événement bi dama ci am mbégte xam ne def lu baax rek a wóor wala def lu rafet rek mooy wóor ci sa biir ndaw ndax lu ma ko jox waaye du lu ma ko wax ne kaay tuddee ma ko ndax groupe boo gis dafa am base dafa am équipe ndax balaa ñoo koy tuddee seen bës kenn dañuy consulté wu waxtaanee ko ba ñoom ñu gis ne man lañ ko war tuddee mënoon nañ ko tuddee nag borom alal waaye tuddeewuñ ko borom alal ndax borom alal yaa ngi fi ñu leen jege ñoom waaye dañu tëb ñëpp tuddee ma bés bu toll noonu ndem teewu woon waaye mel na ne teew naa ndax samay rakk demoon nañu samay doom demoon nañu waaye moom it même bu ma ko tuddee ba pare mu teewal ma ko sax benn lay doon. ban yëg-yëg nga am ci li nga xamante ni moom la ñu la andil waaw yëg-yëg moom rëy na trop waaye waaw waaw waaw rek laay wax waaw ndax lu ma bett la mm-hmm. ah macha allah. war mm-hmm. naa kontaan bi rëy rëy rëy ci lii. Mm-hmm. ndax euh, mënoon na ko ci bañ a fekk ah. waaye nag euh, gën na maa wan nekk àndul man ci xaalis. ndax euh, picc bu photo yaakaar naa ne la ma ko defal yëpp sax. xam naa ne photo bee ko euh, war na ma ne ah lii itte la ci moom te yàlla bu mu yem ci lii yàlla na yàlla def ba ñu gën koo mën di ko jox lante di ko def lante ah, euh, groupe am bi nag bu mu bëgg a xabe mi xam di ci nuyu na bu baax sa Sarr Cheikh Sarr te mu nekk seen TV mm-hmm. euh, tey jii ni mu ngi ITV e mm-hmm. xam naa ne def na ci liggéey bu rafet rafet rafet ndax jàllale na ko ci ci yéene mm-hmm. kon biñ ko tasaaroo ci àdduna bi fu ne lañ ma woowee xamal ma ne ah Cheikh de sa waay la xabe mm-hmm. mi xam def na ci macha allah publicité bu jaar yoon bu jekk bu rafet mm-hmm. boo xam ne ñu ngi ko ci apprécier bu baax a baax a baax kon damay wax nag gàcce ngàllaama Cheikh Sarr di ko ci remercier bu baax du ko nuyu di ko ñaanal yàlla li mu bëgg yàlla na ko ko yàlla defal moom ba mu am moom tam médiawu boppam euh, ndax grand animateur la te ñëpp yëg xam nañu ne lu mu mënee gaa yi mm-hmm. moom buy yégee rek gaa xam ne moom yëg na mm-hmm. moom day dóore moom te du wàcc seen kaw mm-hmm. kon jërëjëf Baye Cheikh Baye Fall lii nag am naa ci mbégte kontaan bu wéyale comme ni ma koy waxee. Mm-hmm. yaakaar naa ne lii sama njaboot sama famille képp ku ko gerte ñebe samay soppe. Mm-hmm. samay nawle samay am di jàmm ku ko gis di nga am mbégte ci lii. Mm-hmm. te lii bu neexee yàlla du ko rëccu. lépp lu mu mën ci lancé ko ci euh, au niveau de international danaa ko def. ci danaa ci jàpp danaa ànd sama groupe ak ñi nga xam ne yaakaar nañu ma. top sama ginnaaw ci wàllu média ci wàllu animateur dinañ ko jàppale te lu mu mën yal na ko yàlla jàppale rakk kontaan na moom fis yal na la yàlla taxaw yal na la yàlla jàppale ci li sama famille kontaan nañu bu baax a baax dem teewuñu ñépp nag waaye macha allah alhamdulilah KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wër te leer ci politique économie santé éducation religion sport ak yeneen événement képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nekk ci biir wala ci biti di nga mën a seetaan seeni événement wala match navétane yu gën a neex ci biir KMTV KMTV njëriñu waa Kër Mousse